moo tax bi ñu ma falee maire de la ville de Thiès bi ma ñëwee ñu ni maire institution la maire de Thiès institution la premier magistrat de la ville conseil municipal bi ne man dama war a am véhicule de fonction ndax ni ngay may gisee ni aw ma véhicule de fonction ndax fekk ma ko foofu may leeral ni li ñu carburant dinaa ñëwaat ci loolu li ñu carburant ci dix derniers mois yi utilisé nañ soixante dix millions de carburant à Thiès ci ma toll ci ñetti oto yoo xam ne ñoo nekk ci ville soixante dix millions de carburant xanaa Thiès moom ñun ñoo doon jox service état bi yëpp carburant ñi ni maire de ville de Thiès dafa war a am véhicule de fonction am na sax ñu nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ndax yàlla dafa ñu dimbali ñun suñu conseil municipal dina tàng waaye ba léegi ñun ñëpp xam nañ li ñu boole mooy Thiès nekk ci yeneen i coalition jàpp ni maire de ville de Thiès dafa war a am véhicule de fonction ma ni leen dëgg la mais jafe-jafe yi ma fekk ci dëkk bi ay bor jafe-jafe yi nga xamante fekk naa ci jamono bii man docteur Babacar Diop rus naa Thiès di ma jëndal véhicule 40 millions ma ci dugg di dox ci biir dëkk bi looloo tax ma renoncé à mon véhicule de fonction xam naa ni damay génn léeg-léeg ñu bëri naan waaw meer moom oto bi dañ ko war a defar dafa war a am oto bu rafet oto bu baax ndax mooy premier magistrat de la ville de Thiès sama liggéey ajuwul ci oto bu rafet déedéet ajuwul ci oto bu rafet ci xalaat yi rafet la tool la aj ci yéene yu rafet la aju ci jëf yu rafet la aju ñaanal leen ñu loolu moo ëpp solo ci boppam fi Thiès toll ci ay jafe-jafe rus na ci budget Thiès ñi ci jël 40 million di ma ci jëndal oto véhicule de fonction man Babacar Diop ma ciy dugg di ci dox samay soxla di dem sampaate di romb ñoo xamante ni fonde lañuy ñuy ndékkee wala moom la ñuy reere loolu rus naa ko jomb naa ko ci jamono bi